li ñu fi dajale nag tey jii mooy suñu partenaires yi nga xam ne ñoo nekk France te ñu mayeen benn ambulance boo xam ne ni ambulance médicalisée la te mu ñëw jamono joo xam ne ni centre de santé bu Darou Moussi dafay polariser ay poste de santé yu bëri mais centre santé aussi dafa di évacuer à Louga ou bien à Dakar et à à Touba. et donc benn ambulance rek lañ am ñu ne kon baax na ñu jàppale centre de santé bu Darou Moussi pour mu am beneen ambulance moo tax. suñu partenaires yi bi ñu mayee ambulance bi ñu ñëw indi ko ci centre de santé bi. parce que benn ambulance moo fi nekk ambulance bi bu évacué euh, bu évacuation amaatoon dañuy am problème parce que ambulance du fi am barki Demba Ndiaye gendarmerie may am na accident bu ñu defoon mais y problème pour ñu mën a évacuer maladie blessé yi parce que benn ambulance moo fi moo fi nekk. je me rappelle ay 2015 2016 am na benn ambulance boo xam état mayoon na ko ministère de la santé mayoon na ko. Euh, daa Daaru Moussi mais ambulance boobu dafa defoon accident bi defee accident aussi mu yàqu ba benn ambulance moo mais au delà de ça santé wér yaram dafa nekk compétence bu ñu décentralisée maanaam dañ ko dénk collectivité territoriale yi te à partir de ce moment collectivité territoriale war na liggéey pour ñu mën a am ambulance wala ñu mën a am équipe. yooyu d' abord dañ leen di wax nan ngeen sondage boobu cela veut dire que am na ñoo xam ñoom ñoo créé sondage boobu noonu ñi ko créé Euh, yaakaar naa soo gisee sondage boobu malgré tout tax suñu taxawaay ca sondage ba taxawaay bu rafet la parce que amuñ ci résultat boo xam ne ni résultat bu ñu bu ñu mën a bu ñu mën a bu ñu mën a ñaawal la mais nag xam nañ ñen ñooy def sondage boobu noonu l' essentiel c' population yi ñooy voté ñi toogoon fii ñëpp tey koo ci laajoon ndax voté nga ci sondage boobu danaan la voté wu ma ci sondage parce que yoruma téléphone bu am whatsapp wala xaw ma woon ne sax sondage boobu am na li ci kanam rawuti bët waa Darou si gis nañ li nga xam ne moom lañ def ci dëkk bi xam nañ le jour ji nan la ñuy def fan la ñuy voté et on le dit toujours su fekkee ne li ñu def moom làmb daj la euh, xool gis mais weddi gis bokku ci bu fekkee ne nit ñi ku liggéey rek lañ bëgg ils verront que ne équipe municipale bi fi nekkoon liggéey na te bu li siy génnee aussi danañ gis ne ñi nekkoon ci conseil municipal bi yëpp xam nañ ne maire bi liggéey na moo tax ñoom ñëpp ñu ànd ak moom. jàppale ko sauf kenn koo xam ne ni adjoint au maire la woon depuis 2016 tegul tànkam ji mairie bi kooku nag moo ànd ak koo xam moo yoram commission éducation moom itam depuis deux ans tegul tànkam ci mairie bi ñu ne dañoo bëgg a jël mairie bi ñooñu waa Darou Mousty dañu xam ne bëgguñu Darou Mousty Darou Mousty intéressé wu la. d' uñ ci parce que ñun ba ñu délégué politique yàgg na bokk ci instance yi daan manifester ak tout ça mais avant manifestation yi aussi c' parce que amuñu woon rajo amuñu woon télévision mais léegi sa téléphone sax télé la. rajo la donc soxlaatuñ yenn yi ensuite Barthélemy Dias moom ci boppam moom moo ne dama bëgg ñu ate attewaat ma parce que d'accord uma ci atte bañ ma attewoon mais kon kay y a pas war a dem wuj ji buñ ko ne ko la atte bu njëkk ba waxoon lañ waxaat mu xam ne moom nag daan nañ ko mais yow ñu atte la nga ne purgé nga sa peine ba pare ba pare nga ne non d'accord ma ci loolu nañ ma attewaat mais na ko assumé nag te ce qu'on a nag li ñu gis nag bërki barki Demba jaay musuñu koo gis ay leader yoo xam ne ni ñëw nañ naan population bi génn leen ñu jàkkaarloog police yi ba leen police yi sànnee lacrymogène ñoom ñëpp ñu daw ñi wax seen digg day metti sax sëgg bañ sëgg ba jàll ci buntu ba c'est extraordinaire donc loolu jar naa xolaat gis nañ bis ba parce que daar Mousty dañuy toog fii élèves yi di fi jaar nañu maire dañu bëgg nga wutal ñu bus parce que yëf yi metti na ñu dem wutal leen bis bi ñu ne bus bi élèves yi jëluñu bis bi chaque année dañ doon perte lu mat un million pour bus bi mën a am carburant mën a fay ñi nekk ci bus bi ñu toog conseil municipal conseil bi yëpp à l'unanimité amul kenn ku ci contre ñu ne nañ jaay bus bi loolu moo tax bis bi kenn gisatu ko ñëw taxaw boo xam ne nii ñëpp a ca bokkoon muy opposition muy ñun ñu yoroon maire bi ñu taxaw jël décision bi nga xam ne moom lañ jël mais ñoo ngi liggéey pour que bis bu ñu amaatee beneen bis wala beneen car mu nekk loo xam moom la élève di jël mais amul sens nga ñëw tegal leen loo xam ne ni ñoom duñ ko jël duñ ko utiliser